merci beaucoup comme ni leen ko waxee woon xam nga ci kaw door door bi waxoon nañ leen Facebook que ni dañ am Pape Sidy Fall tey tey ñu ngi fi ñuy rajo fas yéene waxtaan Pape Sidy Fall kenn dootu ko présenté ci milieu showbiz yi nga xam nañ ko xam nañ ne benn boo ñu tuddoo Ndiarème la jugee fa dem Kaolack jugee Kaolack ñëw Dakar ñu gën ko xamee nag 2STV ci Aba Mbelle man lay dégg. Jules maa ngi lay fay di nuyu waa Senclic yëpp di leen ziar di leen wax ne leen yéen a ko digg woon yegg si naa maa ngi nii bàyyi na ngi si jàmm j'espère que vous allez bien. ça va ñu ngi ci jàmm bu baax ñu sant yàlla Pape tey dañu fas yéene waxtaan donc bu waxtaan boo xam ne ci diggante laaj ak tontu la. oui émission bi dañ koy faral di def xam nga li lay laaj nga ñuy tontu. Mhm. waaw am na wala waaw déet. waaw ok Pape Sidi Fall ñu juddoo fa. Ndiaré bi. ñu juddoo Ndiaré bi. ñaata Pape ñaata at la Pape Sidi Fall actuellement def leen def leen ba léegi war na mat vingt neuf ans wala trente ans li mu am trente ans. léegi am trente ans. <laughs> sama anniversaire c'est pour bientôt. mais je, je pense que je vais avoir bientôt. Okay. macha allah donc Pape Sidi Fall ñu bi ñëw Pape Sidi la ñu ba accéder ñëw Kaolack. liggéey rek. lan moo moom la ñu doon Kaolack. Ah, sama yaay moom moo waxoon ne dafa ma bëgg yar parce que sama tonton rek moo mënoon yar mu ne ma li ma par malchance pour moi ma yegg see sama bopp automatiquement ci affaire bi sànq j'étais obligé ma des Kaolack égale sama année scolaire parce que moom mënoon nañu ko affecté mu dem mais man je ne pouvais pas parce que j' étais vraiment ci mi année scolaire di préparer sama di préparer sama premier semestre su ma ko bëggoon du ma mën a continuer waat feneen ndax du ma leen xam ban programme lañ leen fekk ñu tëral c' était un choix donc qu'il fallait faire et qu'on avait fait pour ñu des Kaolack def lu ñuy def ñu jaar ñu jaar euh, bon. xamee waa Kaolack toi aussi tu es témoin de yi fuural yi rajo brochet yi affaire mbedd yëpp maa ko doon animé loolu yàlla def ma dem dunia di fa animé ay émission yi ndaw ay émission noonu euh, émission noonu tey moo dem ba nekk émission bu mag donc Pape Sidi Fall suñu la déggee ñu ngay jógee Kaolack yaa ngi nekkoon ak sa mère sa mère Koli la seen jaay lan moo tax mu Koli la c'est-à-dire bopp la woon wala. waaw dama dëgëroon bopp surtout dama doon përier <laughs> man dama doon prier rek ba sama yaay doon ma wax naan ma. je me souviens de cette fameuse phrase. da nga tuuti da ngay dem. <laughs> sama yaay non non dama doon xanaa sa taat yi dafa am garabu lañ set. <laughs> parce que tubéy bi ma jëlee dama koy xot koy xot. ndax tellement je je ba ma doon prier. après da ngay dem football yi dem ànd ak sa gars yi dem attaquement xeex dem sàcc mango dem syndicat dem ay xont ñoom jàmbur yi affaire yu dof rek lañ def mooy affaire gone Sénégal donc maire euh, chaque jour ñu ñëw kalaame ko si parce que dama nekk si papi bi xeex man ak sama gars yi dañuy dem football attaquement ñu ñu dóor ñu jël noonu duñ jël xaalis bi ñu demoon ko nangu donc c' était c' était ça il fallait que il fallait mu jël ay responsabilités en tant que kilifa pour ne loolu daf koy arrêté en fait. elle a pris un choix elle a fait elle a fait un choix et choix bi ça a porté ses fruits li mu bëggoon exactement amul mais dans l' idée générale am na. ok Pape Sidy Fall bu ñu la seetloo aussi tamit di seetloo ko li mu sa wax. ci say jëf xam nga donc même sa émission sax bi ngay doxal digestif bi ak benn dafa benn affaire boo xamante moo nekk ci moom ba léegi mooy ci a bi nga am ça lan la def barki am benn mbir bu ma déglu benn kilifa wax Serigne Saliou mu ne boo defee ne xob yàlla yëkkati la nga naaw ñëpp seen. ñëpp seen boo diisee ni moteur suuf si mooy ñëw tege sa kaw doo bouger doo pousse doo passe. kenn dootu la gisati. woyof dafa am solo en fait il faut que nit ñi xam ne nit lu mu am si àdduna nit ñi ñoo ko ëppal nit ñi ñoo ko bu génnee si mbedd mi damay mel ne benn dox moo nekk si mbedd way waxtaan ak nit ñi taw taxante yi mel comme tey tey laa la gis comme si cent ans la ñu xamante dafa damay foog nit sax ba heurté ko wala ci damay mbalag damay fo jàmm rek laa bëgg ma gis bu ma jàkkaarloog yow sama objectif moom mooy ma sourire loo benn yoon ma dem sama pour ma mission su ma ko amee dama koy jël ah, parce que ma mission première c'est de faire de lui-même une personne épanouie nit ki kontaan ba même kilifa même sëriñ même faqmaan même ku bon même fexe na su ma sama sama yéene moom mooy ma fexe ba bu ma jàkkaarloo ak yow wax benn wax bu con nga retaan même si je me ridiculise pour que toi tu ris c'est bien même su ma lay mbalak pour vingt personnes retaan après moi je pense que c'est ça qu'il faut faire et je suis très très dans cette dynamique et je pense que gars yi bëri comprendre nañ mais bon du ñëpp ay comprendre chaque fois si li ngay bëgg a def moo tax euh, je suis très épaté su ma gisee nit ñi ils sont favorables par rapport ak li may ok donc suñu gisee Pape Sidi ni nga mel ak suñu séminaire bi yëpp kaw Ndiarène ñëw Kaolack donc say ami Kaolack ba léegi man dafa am ay affaire yu may dégg. que ni Pape Sidi koy gis ñenn lan la sa time moo la ko may. non non du loolu c'est-à-dire ñaari façon ñëw Kaolack dafa am ñëw Kaolack boo xam ne day siiw ñëpp yëpp mooy concert événement ñu ne Pape Sidi day ñëw moo indaale tele bi. di dox si mbedd yi nit ñi di ma gis beneen bi si des moom mooy ñi nga doon àndal ngay àndal ba léegi ñi nga doon xam ngay xam ba léegi mais du ma dikk nag pour weekend wala pour repos wala pour seet si sama njaboot parce que moo fii si à Kaolack du ma ñëw ba pare am naan non damay dem kër gu nekk salaamaaleykum ñëw naa. Moustapha Moustapha waaw Moustapha Fall Moustapha Fall eh, ñëw naa Kaolack ah eh salaamaaleykum ñëw naa Kaolack je vais pas ma dikkee Kaolack comme ñii nekk Ndakaaru yëpp di dem Kaolack du ñëpp ngay yëg ku ci nekk sa koñ sa ruux bu ndaw ñooy yëg ngeen bëggee après ñu jël jël Jakarta dem seeti benn copain bu dëkk Boustane benn copain bu dëkk Ngaan après tu prends ta voiture nga ñibbi ok man fréquenté <laughs> ko ñu jaar donc bi ñu nekk xale di danse di fecc fos <laughs> nga je me rappelle ñu defar ay caaya yaa ngi joxoon saawanu saawanu Euh, waa biddiw bu bees yaa ngi dégg jox yëkkati sax xaalis sa poos bu fekk la euh, al fayda nga sa xaalis jox ko mais ñaw leen ngeen complété ngeen dem ci moom donc seen témoignage boo xam ne da koy def yow bokk na ci suñu ko def jërëjëf sax ma la ci remercier gars yi dañu ci sant ah daa moo nekkoon ménage yeneen gars yeneen gars yeneen gars mais tey Pape Sidy euh. donc ñu ne aussi malgré ak li nga def lépp kaw la aussi tamit kaw la def sama volet formation yi ci rajo bi ak yooyu yëpp donc relation yi nga amoon ak bëmbër yi nekkoon foofu te tey booy dégg Kaolack waaye fii ci Dakar tuuti nga ci dégg wala kër gi rek nga ci dégg wala général wala keneen ak keneen te Kaolack bu ñu fay nekk man daanaa la fay xam nga li fa nekk ci ay bëmbër te yàlla dimbale na fii concert mënul daw Sénégal Dakar fii te yow présenté wu c'est-à-dire naka ngay def actuellement foofu. waaw ak booy est-ce que yaa ngi leen di jàppale est-ce que yaa ngi leen di xëcc est yaa ngi leen di dimbale parce que dañu yaakaar ci yow waaw dafa am ñaari mbir yu man animateur la mu ngi mel ne benn journaliste bu tudd Assane Top nekk kaw la di joxe information ba yàlla indi ko nga ne ko non comme xam yow yow xam nga leader politique yi nekk Dakar yi yi nekk Kaolack yëpp danga leen di indi ñu nekk leader politique Dakar mënu nekk cest à nit ku nekk dafa am base léegi dafa am jongante boo xam ne man partie bu njëkk ba Kaolack rek laa nekk daanaa teg hip hop daal seen yëpp nag waaye kaw Kaolack dafa amoon benn particularité boo xam ne dañ koy def focus sur yàlla di def jamono di dox ba may dikk ci mbir moo xam ne ñu média télévision ni ko waa Kaolack di seetaane noonu la ko waa Fouta di seetaane noonu la ko waa Kédougou di seetaane noonu la ko waa Kolda di seetaane noonu la ko waa ainsi de suite ainsi de suite ruq yi nekk Sénégal yëpp noonu lañ koy seetaane ku nekk nag toog ci ruqam nekk rappeur am talent bëgg feeñ waaye nag ñoom ñëpp dañ may xaar ah Kaolack waa la waa Kaolack rek lay indi ci émission loolu bu fekkoon am na way wu ñaaw lay doon ci Kaolack mais man xare naa ba nit ñi dañ naan Kaolack waay la waale il fait bien son il fait bien son je représente dignement Kaolack tey dama bëgg ñi nga xam ne dañu nekk Kaolack di liggéey di nekk ay rapport ñu góorgóorlu ñoom ba bu ñu leen indee ñu bañ leen a indi ndax ndimbal mais ñu indi leen ndax seen talent ndax boo dikkee bu fekkee dañ lay bëmax rek di la jañax classe boo dikki ñu ne la passel classe boo dikki ñu ne la passel boo demee ba sem da ngay taxaw c'est vrai foo yam nga ne classe góor yi classe góor <laughs> et très attentionné par rapport à la sélection dans une une euh, il faut être sélectif mënoon naa jël boobu Kaolack yëpp teg leen teg amul problème mais après je leur rends un mauvais service am na benn booy bu tudd Wëz Naza Squad Wëz Naza Squad kas na Wëz bu Naza non euh, Sam la Sam la ñoom waa Naza ñoom ñoo nekk euh, ci booru LT bi Wëz xale la sama kanam la commencé foogantooram mu ngi rap ba léegi di génn ci ay publicité di génn di dem ci ay compétition di dem ba final bu mu booy waxee jël ko dama naan leen maa bañ parce que xam naa li ma ko bëggal xam naa fi ma ko bëgg a dugal xam naa ban chemin la gis nga teel a sotti fii ci réew mi baaxul li lay kar day bari te boo amut jugaale soo amul base soo amul fondement lu fekk baas mooy am ay nit politico baas moom mooy am ndëgër laay am expérience am vécu xam ñàkk xam am xam ñàkk laa xam xam succès xam gel bu rafet xam gel bu ñaaw xam gel buy xeeñ parfum bu neex xam gel bu xasaw loolu day tax nga mën a am bagage intellectuel ba boo dikkee boo toogee da ngay da ngay naqare ba mbax waaye boo fëlee rek am benn club ñëw gars yi jàppale wuñ ma man tiituma si lu may def ragaluma si li may def bu ma demee bay def lu bon yàlla na ma yàlla taxaleeg li may def man damay bëgg def lu baax. bu ma tëddee sama conscience nekk ci jàmm.